dal leen ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan ba M TV cant ak ngërëm ñenn leen si topp bi ngeen di topp seen bi lu doy waar nag jamono bi moo ngi xew diggante seex baara Ndiaye ak Cheikh Ahmed Cissé ñoom ñaar ñi nag bokkuñu ku nekk fi nga far waaye nag xeex bu métti métti mu ngi am seen diggante ndax Cheikh Bara Ndiaye dafa yëkkati ay kàddu di xamle que ne élection yi kii di Bassirou Diomaye Faye da koy gañe ne bu amadou ba gagné élection yi mom mi di cheikh bara ndjay da fay sey kaddu yi ni mel nak la daal di yëkëti ginaaw waxé lu ni mel nak ki di cheikh ahmed cissé genn na tontu ci lolu di wax nak amadou ba premier tour lay gagné élection yi genn kamilu alcorane tek wat que ne amadou ba moy ki gëna jek jamono bi ni ci Don président bu sénégal mu nek nak ay kàddu yo xamne ñom ñaar ku de yëkkati nga ko mu nek kàddu yu juumloo waye nak ñu ngi xaar ba xam élection présidentielle 2024 yi di wara am dimanche yagatul allah ana lan mo na xew ndax ki di Jumaay Fay da fay genn premier tour wala deuxième tour nga xamne sax ñu baree bari si ñi def jangat wax nañu ne élection yi kenn mënu ko gagner premier tour deuxième tour rek la démé la mëna Eh, genne muy basiru jumaay fay wala ki di Amadou Ba mu nek nak guerre bo xam ñom ñaan ñi ñu koy def si internet bi ki di Cheikh Bara ndjay mom nak watna ci si Cheikh Ahmadou ma Khadim Rasoul que ki di Bassirou jumaay fay Amadou Ba mënu ko gagné si élection yi ni mom Cheikh Bara ndjay kaddu yi ni mel daal di yëkkati mu nek nak doy war lo mo ngi am ci langue politique gi Kiri di Cheikh Ahmed Cissé nak jamono bi mom Amadou bala andal ñu bari na ngi wax kané nak mom mi dañu ko jënd dañ ko fay xaaliss bu bare bari moo tax mu daal di euh, cëñ maynam top ki di Amadou Ba wuté nak lool ak ki di Cheikh Bara jaay nga xamné yag nañ ko gis mu top ki di président Ousmane Sonko di def ay analyse yu ama am solo ak ay jangat te bobé ba légui mom Euh, tourné wut daal di farak pouvoir bi boobu ba léegi fi mu nekk la nekk moom Cheikh Bara Ndiaye tax nag moom daal li mu jàpp te gëm ko mooy élection yi nii euh, premier tour la ko kii di Bassirou Diomaye Faye di gagné.